gis nañ ni euh, ki nga xam ne moom mooy euh, oustaz Modou Fall hmm, am na kàddu yi nga xam ne nag euh, yëkkati na ko ci jouru gàmmu gi ndax soxnaam dafa teew ci gàmmu bi nga xam ne moom la ñu ci kër Aziz te loolu indi li nga xam ne moom mooy tole mu bërit nag li nga xam ne moom mooy part chaque fois comme ci internet bi lañ parti yooyu lañuy jël di ko dugal ci internet ba mu am ay tollee bi nga xam ne nag euh, foogeew ñu ni dinañ doon àgg fi nii parce que déjà tey ji ni moo Modou faal mu ngi Daara Santé comme ni ñu koy waxee moom ak euh, Aïssatou Diop Fall. Hmm, foofu la mujjee voilà foofu la mujjee parce que Aïssatou Diop Fall moom moom tam moo doon wax ni euh, bu ñuy ut li nga xam ne moom mooy xam-xam wala bu ñu bëggee lépp li nga xam ne nag dafay jóge ci yàlla maanaam bu ñu bëggee am ay kàddu yu jóge ci yàlla directement ñëw nañu xool ñeen yi nga xam ne nag ci oustaz yooyu la ñuy dem. Hmm. mais ku dul Modou Fall ndax Modou Fall dafa di. ki nga xam ne nag mooy us seul oustaz bi nga xam ne dafay dem euh, ay Bercy affaire yooyu xam nga rek nekk ci <laughs> voilà xam naa loolu tam euh, Aïssatou ba mu ko waxee Modou Fall tam profité na ci daal di ko tontu waaye tey tam Aïssatou Diop Fall tontu na ko tontu bi nga xam ne nag ñemeewu ma taxaw ci askan bi euh, di ko wax parce que dem na ba dugg ci ay partie intime di ko wax est-ce que c'est c'est le rôle ci oustaz parce que déjà oustaz la ñu mën a wax mooy chaque fois oustaz ci buy waaraate dafay wax ci li nga xam ne nag moom moo laal ci jikko yi nit hmm. te am na ci ci assemblée bi kenn ki nga xam ne nag dafay jàpp ni oustaz bi moom lay wax directement parce que jikkoom lay laal parce que mbo c'est c'est c'est prévu hmm. nag dafay am ci mbooloo ki nga xam ne da ngay jàpp ni man lay wax est-ce que tey jii nii ñii ñoom nu ñuy encaisser loolu noonu ñoom amuñu mënuñu nekk seen place tam buñ leen waxalee dara njéem encaisser ñu dem ci kanam euh, bon xam nga tuddee encaisser mais euh, lima qui ont par exemple gens qui situation des gens ci ont wala même te gi wala euh, mhm. de plus en plus gens dem ay dérives euh, ostentatoires hein, ak attaques personnelles hein, ak ay des sa qui ak des mhm. yu bare ngi ci gens qui ont des gens dénaturer. ont mhm. bi magal qui ont des gens qui ont ça n'a rien à voir ak lu bari lo gens qui ñenn dem faut pas généraliser. Mhm. parce que une semaine avant ce mbokk intellectuel fii fi def ay séminaires yu xóot. Mhm. intellectuel participer ci boo demee dam Touba fekk ay waxtaan kon ku nekk daal la la fa yóbbu euh, mais caaxaankat yi tamit dañ fay dem leul seen leul je me dis c'est là où de plus en plus les autorités euh, religieuses musulmanes wara gëna bayyi xel pour baña bayyi bàyyi ñooñu nga xam catégorie nit yoy nga xam lenen mo lañ fay indi dañu bëgg récupérer euh jàllale ci lenen mu baña yomb ci ñoom loolu war na mën nekk nga xam ne mën na ay rëcc rëcc nii rek. Mhm. mais warul dem mais léegi par contre y a une tendance systématique à ce que yooyu bu xewee ay nit ñëw fa yoo xam ni euh, message ak objectif religieux bi am ci loolu indiw leen fa ñu dénaturer ko bëgg na siiw sax ba ba ravir la vedette <laughs> on peut dire. Euh, euh, mais mais loolu moo fa am ah. voilà justement loolu nag laa wax ne tey jii les autorités surtout kilifa diine yi kër diine yi. waruñu nangu loolu te loolu war nañ ko mën a gàttandu anticiper ko ah euh, empêcher ko war na mën a nekk parce que nit ñi fay ñëw di def yooyu en général xam nañ leen day fekk xam nañ leen déjà ah euh, xam nañ ban façon nit la ñu aussi mm-hmm. ak luy seen doxali nag ni ñu jaxasoog àdduna gi yu mel noonu mm-hmm. kon war nañ ko mën a anticiper donc man loolu lay euh, regretter maintenant nga ne gàmmu nga ne màggal nga ne ziyaara ba pare mujj bàyyi ko ay nit àdduna yoo xam ni lay jubluwaay ba ci wàllu diine. Mhm. ñoom du seen jubluwaay loolu vraiment échec la échec la euh, donte woon xam naa ni yombul mais war na ci mën a gën a taxaw euh, pour que comme loolu xew diggante Oustaz Modou Fall kii li nga wax. ci Aïssatou Diop Fall Aziz Ndiaye mhm. yooyu yëpp daal euh, mën naa ñàkk maanaam ñooñu war nañ mën a am yeneen jataay. yu ñuy waxante lañ bëgg a waxante ñoom ku mu intéressé nga toppaleen foofu. surtout ci toile bi lañ koy dugal. waaw mais yooyu mën nañ ko dugal ci toile bi fu mu leen neexee. Mhm. mais bu mu nekk ci occasion wu. gàmmu. Euh, loo xam ne en tout cas daal diine moo ko lal loolu rek la léegi mi ngi noonu Aïssatou Diop Fall su bëggee attaque attaqué Modou faal jàpp ne du oustaz dëgg et cetera et euh, mën na ko defee ci beneen euh, jataay oustaz Modou Fall tam mën na ko tontu ci beneen jataay mais warul woon nekk ci jataayu foo xam ni personnalité centrale bi ñu war waxtaan Ali Salatou alayhi ñu ak ben soxna ñuy ñuy viral donc lool l'a wax ne euh, kilifa diine yi war nañu mëna gëna jël ay mesures les comités d'organisation ay jeunes lañu intellectuels yo xamni war nañ wax bu ah, genre programme yoo xam ni di ko fi def. effectivement am na que muy li xew Tiwaawoon ak wala feneen. voilà Tiwaawoon effectivement. am na te ñooñu en général ñiy def yooyu ci kër ga la ñuy bokk est-ce que man mi maa dem def ko fa. déedéet yow amoo fa kër. voilà mais day nekk ñoo xam dañoo bokk ci kër gi. sant santu kilifa gi wala nekk cousin wala frère am wala demi frère am wala doomu tantam. wala am tur wala am tur en tout cas wala am fu ñu féete kër gi. ñooñu ñoo fay def yooyu ah na nga ko seetlu keneen koo fa def di nga xam. parce que am na benn commission bi nga xam ne nag lancé nañu euh, li nga xam ne nag moom mooy alerte ci euh, Aziz Ndiaye wax ko ni ren yi nii xëy na rëcc na. Mhm. waaye prochainement dañuy daal di bàyyi xel bu fekkee ne. am na waaw loolu laa bëgg a wax. voilà lu mel noonu te loolu nee la comme li ñuy wax ci wolof rek naa la dóor ci sama loxo la laal jarul violence jarul dara. Mhm. xoolal dafa am nooy doxalee rek ba loolu dootu fa am parce que bu ñu identifier ñu ko fay def. ak ñi am sañ-sañu bu ko def ndax comme ni mu ko waxee dafa am fu ñu féete kër gi ak euh, wala ñu bokk ci kër gi ci deret bu ñu waxee ak ñoom lu leer et cetera euh, du fa am gisoo euh, Touba tam am na yoo xam ne bi mu commencé am foofu nga sëñ bi génn wax ne lii ak lii. bëgg ko fi mm-hmm. dégg. Mm-hmm. donc yooyu pour man la ñu war a bàyyi xel parce que soo gisee ma la doon wax divergence bu amoon ci affaire ay gàmm ak yu mel noonu. Mm-hmm. lii day gën a jox raison ñi wax ne lii mm. justement euh, parce que <laughs> am na ci benn ay ay ay xale jigéen yi nga xam ne nag presque presque mun nañ wax ni dañuy gis seen yaram bi yëpp parce que colin bu ñuy sol du ñu muuru du ñu def dara ci guddi yonent bi waaw nekk ci bu fekkoon dañuy nekk ci benn ruq toog euh, muñu mun a accepté ñooñu dañ leen waroon wax ñoom ñooy jaabante dañ leen waroon wax yonent bi salaa salaam bi tax ngeen ñëw la la lan lan lan la ay soxnaam meloon ñoom loolu lañ leen war a jàngal

est-ce que jikko jikko jikko jàngalekat surtout nga nekk oustaz waru mun a munoo waroo mun a am li nga xam mooy euh, dépassement ci yéen yi ndax yow euh, chaque jour. yaa doo ko mën a am xam nga lu tax moo jëlee par exemple ka Modou Fall man euh, classe naa ko fi entre guillemets ci affaire nu mu tudd tam xarit bi. Mm-hmm. mu wax fi njaaxum bu rëy tam xarit waruñ koo def. noonu nga mel maanaam li la indi ci plateau bi mooy wayaan ak wax yu ñàkk solo kooku fan ngay jëlee dépassement. foo jëlee dépassement. sa état d'esprit du la ko may. surtout boo boo waxee ma yaa ngi ci terrain boo xam ne yow sa bopp yaa indi terrain xàqataay waxtaan. Mm-hmm. Ah, e cokkaas xaw ma jigéen ñi fii naan mais kooku après benn jigéen su jékki tam itam cokkaas la ban dépassement koy def. ban dépassement. parce que wax nañu am na am na ay oustaz yu nekk ci plateau yoo xam ne benn jigéen xalaatul di leen dépassé ci dara. waaw mm-hmm. ah. comme li ñuy wax mag euh, buñ ko yebee ci daagu ba noonu la tey ji dafa bëri ay imam ay oustaz bon dafa bëri relativement la bëgg wax euh, ay imam yoo xam ne yab leen dafa yomb parce que dañu yablu seen bopp ni ñuy waxee ci plateau yi nangam nangam man gis naa benn oustaz ci benn plateau mu tudd benn waaye daal di ko ne une semaine ñetti fan moo des sama ngénte boobu ba tey maa ngi koy wax ba tey bougé woo <laughs> kooku su ko ay nit woowee téléphone yab ko euh, est-ce que mm-hmm. néew ma bu mu wax kenn dara mais kooku mënul seq ak moom en privé li ko ngénteem loolu jar na wax plateau bi mm-hmm. donc su fekkee noonu ngay defee nitu caaxaankat yëpp tam yab la kon léegi après bul génn naa lu tax ñu wax ma lii et cetera kon man gis naa ni Oustaz Modou Fall il a une grande part de responsabilité ci tey li may buntu euh, koo xam ni xamul dara ci diine comme Astou Diop mhm. ci leneen lañ ko xam mu koy mën a ba naan koy waroo wax ci l'islam wala bay tudd yeneen ci moom il a une part de parce que Astou Diop Fall am na ñoo xam ne du leen wax parce que dafa waxoon sax euh, moom xamul Aziz.

même bu dee oustaz nga ñu ne la li nga def ni li ak li ànd non mais soo soo ko rek c'est que sa état d'esprit mayu la ko ça veut dire que ni tu n'es pas préparé spirituellement et moralement pour mën ko accepter. ça veut dire que mm-hmm. tu es à terre. Mm-hmm. comme tu es à terre wacc nga sa ànd. Mm-hmm. normalement comme ni ma ko waxe bo défé le travail spirituel normal amna personnalité boy am bu nee la nit du xalat sax egg ak yow fenn fi nit ki mën na sax baña d'accord ak yow xolal mais da lay jox cër du ko tay ndax yow sa bopp li ngay dégagé ci walu tiné ak ci walu respectabilité mais bu fekkee yow sa bopp dafa am no mel nek à terre comme ni ma la ko waxee tëri ngeen discours yi yenn ñàkk fayda yi mais kooku nit ku nek tam mën na la fekk ci fofu té boobaa tamit euh bokoy tontu tamit comme tu es déjà à terre euh, tu vas encore tirer vers